man benn jour rek laa fay gisoon a liggéey. kan moo la jëloon foofu nga fay liggéey. jëkkër na jëkkëram de moom ma jëloon nee na dafa bëgg jànk ko koy liggéeyal. lan la lan ngeen waxante woon bi mu bi lay jël. ah ba mu ma jëlee dafa maa ne comme liggéey jànk liggéey kër daal. liggéey kër yóbbu. Uh-huh. waaw yóbbu xale yi école euh, nettoyer kër gi fóot yëre xale yi loolu rek lañ waxoon. loolu ngeen waxante woon mu war la fay. waaw la liggéey fa ñaar fukki fan. waaw vingt jours. jotee ak jabaram. jabar ji daal mosu ñoo jotee dara mosu ñoo xuloo ma demee foofu tamit mosu ñoo dara daal. Eh. premier jour daal. Mhm. premier premier ba may fóotal yére yére xale ba may fóotal xale yi. Mhm. dimanche bi jour dimanche la tombé woon léegi may fekk may mu yeewu mu fekk may fóot yére xale yi. Mhm. mu ne ma waa lu tax yow sama ma yi nekk si saal bi fóotoo ko avant loolu moom fóot ko tamit vendredi lañ ñëwoon foofu pour fóotali ñoom seen yére yi. léegi bi sam samedi dimanche man ma foot yére xale yi avant may fóot yére xale yi nag fekk man fóot naa yàggul après ma gis yére xale yi bëri waat ma ne waa waxuma ko kenn mais wax naa ko sama biir xol ma ne waa yére xale yi moom bëri na di ma ne ah garaaw ndax man xam nga affaire wax daf may déranger man ma coow xaw ma ko sax ma ñëw ma génnee jour yi man a mu tey ma foot yére xale yi léegi ma génnee sépp yére xale yi si pan de bi si saag bi may xale yi dugal ko si beneen pan bu ñuy fóotee ba pan bi fees léegi may mu fekk mu fekk may bàcc ma bàyyi moom ay yére mi foofu parce que yére yi dafa bëri te tombé heure boobu man ndekkee gu ma sax te pare wu ma sama liggéey ay heure boobu. Mhm. léegi bu fekk may fóot yére xale yi mu ne ma lu tax fóotoo sama yére yi man ko ah yére yi da yére xale yi dafa bëri mun ma kaa fóot tey xanaa beneen yoon mu saaga ma ndey. mu ne ma mënoo fóot mënoo fóot yére yi ay yéreem yow parce que yére xale yi dafa bëri. waaw loolu nga ko wax. waaw. léegi ma ne ko mun maa fóot tey yi ma ne ko ah tey de mun ma kaa dafa bëri xanaa beneen yoon mu ne par la force da nga koy fóot mu saaga ma ndey man nu ma sëggee noonu du fóot nag mu dugg si waañ bi man xalaatuma ma dinaa a xeex sama àdduna dama damaa ne man dépassé naa ay xeex yooyu noonu. léegi mu fekk mooy fóot mu jël kur gi dóor ma ko si ginnaaw fekk maa ngi toog wane ginnaaw mu dóor ma kur bi si ginnaaw. ba ma dóoree kuur si nag si laa jóg nag man ba ma dóoree kuur man damaa perturbé xaw ma woon fan laa nekk dama doon miir. ba ma ba ma miiree nag après si la ma song sànni ma si biir paan paan ma doon sóotee. Mhm. mu sànni ma ci di paan bi mu songoog man du ma dóor ma ne ko mais bàyyi ma yow da ngaa ma fóota ma ne ah mun ma laa fóotal tey yére xale yi laay fóot nga ne par la dama koy foot nga saaga ma ndey mu ne waa yére di ko fóot tey si la ma songoon a dugal ma si biir si biir paan bi mat sama bakkan bi man sama bakkan ma yuuxu na ba sonn ma naroon naa faa dee sax yuuxu naa ba sonn bàyyi sama bakkan woy dinaa dee woy bàyyi ma woy dinaa dee taxu mu bàyyi ma mat sama bakkan bi de si kaw su yax yi di dajaloo instant bi bakkan bi day metti mhm. instant bi mu retourné mhm. kon nel waa mu retourné waat mantaak tuun bi fekk mu ngi téye sama ñaari loxo yi soo leen xoolee vidéo bi di ngeen ko gis mu xoo mu téye sama ñaari loxo yi sosu ko si paan bi muy maatu tuun bi di maatu ma yuuxu di yuuxu ndax aywa eh, nu ma nu ma jëlee position bu ma jëlee man mun ma dara ndax moom soo leen xoolee vidéo bi moom moo ma ëpp doole man xaw ma sax ni ñu xeexee moom moo ma ëpp doole mu fekk moom may may may mu juutal ma mu ma si biir paan bi daal mu sëgg sama kaw di matt di matt ma ne ko bàyyi ma bàyyi ma paree buñ loolu mu jël sama bopp bi juutal ko si biir paan bi paan bi ma doon fóotee fu saabu bi nekk li yeneen xale nekk nee na day jël sama bopp bi ñu ñu ko si biir paan bi maa def le tout pour génn si biir paan bi waaye na ko naroon naa faa dee wax na lii yuuxu naa ba sonn taxu mu bàyyi ma ma ma ma daanu si suuf mu retourné waat yéegaat sama kaw mu may mu may dóor di ma dóor sama baaram bi dakaa maat loxo bi dakaa maat baaram bi dakaa daka dakaa maat ba baaram bi dañ séparé wu. baaram bi dafa séparé. dafa séparé dafa dagg complètement euh, te yéen te yéen ñaar waxaalewul woon bu yow bi nga ñëw ci kër gi waxoo woon da ngay fóot fóot yi ay fóot ay yére bokk ci woon xëy na xale rek ngeen waxaale woon. waaw yëre xale lañu waxaale woon man jëkkëram maanaam moo waxaale yëre xale rek lañu waxaale woon. ok yow diiran vingt jours yi nga nekk foofu moom danoon xuloo ak jëkkëram wala mosoo ko gis mu xuloo ak jëkkëram. non man loolu nag jotuma cee xam dara. yow da nga daan wàcc wala da nga daan fanaan. dama doon wàcc quinze jours. sa quinze jours nga daan wàcc di ñibbi. waaw d' accord mais euh, ba jour bi ngeen di xeexee ngeen mos a am problème yéen ñaar mosu leen am problème ginnaaw bi ngeen xeexee. déedéet mosu ñoo am problème mosu ñoo xuloo te mosu maa yónni ba ma bañ man daal su ma xëyee daal lu may liggéey laay liggéey damay xëy di sept heures di liggéey ba dix neuf heures laay arrêté sama liggéey ndax damay damay nekk di liggéey mu ne ma kaay mooy yónni la dama dama jëndal ma ak suñu dëkk ak tali ba dafa sori damay bàyyi lu muy liggéey ma dem ma dem ma dem yónni yónneem d'après euh, d'après ki ki nga doon sa patron bu jigéen bi nga doon xeexal ni yaayam nee na jëkkëram moom moo leen sa jëkkër patron bi moo la doon monté contre jëkkëram ne la moom mooy sa patron moom jëlu la loolu na loolu amul ndax nga man ba ma ñëwee man xool ma ki ko kii moo ma jël te kii jëluma lii sama liggéey wala lii di sama liggéey man damay liggéey rek ndax ma loolu laa xam man dama doon liggéey rek sama liggéey moom mosuma yoon ba mën a ko dew ma jour boobu rek la premier jour ba may fóot ci la ma wax ne bàccaale ma ne ah mun ma kaa bàcc parce que yëre xale dafa bëri te avant loolu moom daf ma doon jox ay ay ay bëjëm wala ay robu yendookaayam su may bàcc ma bàcc ma bàccaale ko ne loolu man dafa ma ko muy dara jour ba ma waxee na bàccaali ma sama yére ma ne ko ah yére xale dafa bëri na paan bi dafa fees te heure te pareeguma sama liggéey ma ne ko mënuma kaa bàcc tey xanaa beneen yoon nee na par la force dama koy bàcc mu songu ma. d' accord léegi ginnaaw bi ngeen xeexee ba pare dem ngeen police ba ñu àtte leen ba pare actuellement nii yow ci yan condition nga nekk. instant bi man sonn naa trop ndax sama bopp bi day métti damay miir parfois su ma yàggee sëgg damay miir comme su may julli nii damay miir ba du ma xam sax fu may taxaw tant que jëlum tant que tooguma wala ma tëdd. du ma xam fu ma nekk boobu day métti day damay miir tamit. d'accord sama ndigile. Mhm. ndigile tamit mënuma toog toog bu yàgg su ma toogee tuuti sama ndigile day métti sama yaram yëpp ay métti il faut ma dem tëdd ma damay journée bi dama koy yëndoo tëdd. d'accord léegi la yow lan nga bëgg yow léegi. instant bi lu ma bëgg daal wax naan trois mois dañ koy tëj. trois mois boobu na laa bëgg ta non nangu bëgguma kaa dégg trois mois ak cinq cent mille bu ñu jox loolu bëgguma ko. yoon dafa ne yoon yoon dafa ne ñu jox la cinq cent mille ndàmpaay. waaw moom ñu tëj ko trois mois ferme. trois mois ferme. loolu d' accord oo ci. déedéet d' lan nga ci bëgg léegi. moom nañ ko teg fii ba vingt ans. Hmm. te sama xaalis na ma ko jox ba mu mat sëkk. ndax moom daf maa naroon na rey. koo xamante ne mustu laa dépassé man bët may xoolee sama mag bët boobu laa koy xoolee. te man du ma sax mag na ma ay ay at yi at. ñaata at nga am. man denc naa la am. d' accord léegi soo amaatul leneen loo ci dolli rek merci. man daal leneen lu may mën ci dolli euh, di wax waa képp ko seetaan vidéo bi daal métti na leen trop parce que da ngay seetaan émission bi nga gis mère wala paam mu woote mu wax lu daw yaram wala mu jooy mu ne nee na vidéo bi dafa daw yaram trop maa ngi leen di mastawu parce que yëf yi métti na trop man vidéo yi sax sama waajur yi mujj ma bugg ma sañu seetaan ndax dañoo jëm mag mun na mun nañ kaa seetaan affaire bi jëmee leen kaw wala affaire tension bu ñu nekk mu daaneel leen boobaat du baax si ñoom te vidéo bi nag ak nañ def la tuuti ñu jàppale ma ko ñu génnee ko si réseaux sociaux yi parce que bu ma gisee vidéo beeg ak a bi métti na ma trop ba ci kanam yàlla. d'accord nañ ma jàppale mu génne te sama loxo bi nag baaraam bu mu dagg wax naa ko sur binaam ma na ma ko delloo parce que sama loxo bi guddi mënu maa nelaw barki déew trois heures du matin laaju ko ma toog di jooy sama loxo bi di métti mënu maa nelaw sama yaram bi yëpp di métti sonn naa franchement nañ ma jàppale. léegi léegi léegi yow euh, sa euh, sa dëkkatu baaraam bi ca kër gi nga ko bàyyi woon. man daa xaw ma ba mu daggee sama baaraam bi xaw ma man man xaw ma xaw ma woon sa fan laa nekk. moom da da koo matt ba mu dagg. da kaa matt ba mu dagg xaw ma fu mu ko def. xaw ma da kaa woon xaw ma nu mu ko nu mu ko def noonu. d'accord merci beaucoup. ok merci.